kon nag bu nu yàlla dimbalee ba sunna soosu ñu matal ko roy ko Seydina Muhammad sallallahu taxaw mooy xeeru marwa fa ñu commencé woon safa moom yàlla di wax inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم foofu lañ ne nii fii nag góor gu fi taxaw war nga am yëg-yëg jigéen gu fi taxaw war nga am yëg-yëg borom kër gu fi taxaw war nga am yëg-yëg soxna su fi taxaw war na am yëg-yëg doom ju fi taxaw war naa am yëg-yëg ndax lii jigéene ko muñ ci kër borom këram ba yàlla jox ko yi waaye it ndaw moo nangu dogalu yàlla ba yàlla jox ko yi kon yàlla nañu yàlla tàggat ñu am ci jàngat li may wax toujours ak léppam jàngat loo def ci ak toogal nga jàngat ko lan nga def ndax tey wër loola lenn jaagante loola diggante bi ku la ko def loo woon sa kër ko def ndax lii fekk na ci gàtt waaye gàtt kon yal na yàlla na yàlla fay leen kenn ku ne yal na la yàlla tàggataat ba nga taxawaat fii defe ko nii ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam talaata la ñuy def tawaafu tàggatoo talaata incha allah loolu moom tawaaf kese lay doon incha allah jomb mu xaw a fiir waaye tey xat na waaye xat-xat yëpp yiw la yàlla nañ ko yàlla fay. amiin yaa